Souleymane Aliou jàlloo président ONG Otra Africa waxtaanee wàllum jafe-jafe mbëkk meeg xale yi. chiffre yooyu du ay chiffre yu génn nii rek. Euh, am na wala amul l'essentiel mooy ni que am na ñoo xam ne ñoom ñoo yore askan bi ñoom ñoo jiite askan bi euh, bu demee noonu ñoom ñoo mën a wax parce que tamit euh, ñun amaana ni. ñu koy wax ñu mel ni sama bànqaas euh, man bi ñu ko waxee rek dam leen ne daanaka lim bi am na solo takku na trop mais bés boo xëyee rek am na lim bu siy tegu bés boo xëyee rek am na lim bu siy tegu ginnaaw toll na foofu léegi bu ñuy xëccoo si ay lim bu ñu polémique si ay lim nañu concentré wu directement si lan la ñu fexe pour arrêter lim boobu ñu fexe mbëkk mi génn nii ak jamono bu mu kii nii parce que en 2006 bi mu commencé lim bi ñuy am te ñu koy suivre si journaux espagnols yi ñu koy suivre ak ñu nekk ci terrain bi lim boobu mu ngi ëpp dayo et que njiit ñi yore réew mi ñoom ñoo war a mën a euh, takk seen digg pour mën a affronter lii donc lim boobu ñun ginnaaw yoruñu baatu officiel baatu askan bi dañ koy xayma rek si li ñuy jëlee li génn bitim réew jële ko tamit si bànqaasu ONG ak organisation multilatérale ak partenaire Sénégal yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si wàllu boobu don OIM boobu ñuy wax donc démb dégg nañu euh, ministre secretaire général du gouvernement ne ñoom mënuñu si xayma mais ñun nag dañu dëmb bi mu ko déggee rek immédiatement ñi ma concerté wu dañu ne su doon suñu sago bi gaal bi génn bi commencé génn ba ñu wax fukk ba di wax ñaar fukk ba di wax fanweer ñi décédé une cellule de crise dañ ko waroon monter au sein du ministère des affaires étrangères ñu koy suivre au quotidien parce que bu ñu neewee juróomi téeméer rek mooy ni que kon mbëkk mi moo gën a rey mbas mi parce que seen si lim la ñu wax on parle de cinq 500. donc suñu xoolee le nombre de décédés de la Covid 19 te saa yi bu ñu xëyee rek ministère de la santé day def le point sur euh, la Covid 19 donc ministère des affaires étrangères tey fi mbëkk mi toll war na mën a ut structure bànqaas boo xam ne war nañu mën a defal point ou situation. parce moom dafa wax ni li tax mu jafe xayma mooy euh, ginnaaw ñii dem dañuy làqatu te amul kayit gu ñu leen bind seen i tur. Euh, dina jafe xayma est-ce que loolu yéen euh, gisee ngeen noonu itam. waaw euh, li làqatu si réew mi bëri na waaye war nañu mën a am ginnaaw ñoom ñooy ay structure ñoom ñoo yore nguur yi te ñu jox leen bànqaas jox leen moyen jox leen lépp li war ba pare tamit ñoom ñoo yore convention yi ñoom ak Espagne war nañu mën a lëkkaloo pour même bu ñu amul les chiffres yu exact ñu am ay chiffres d'orientation wala ay estimation de chiffres loolu nan lañ koy war a mën a defee mooy ni que ñoom seen biir tey euh, ñoom ñoo yore police bi ñoom ñoo yore gendarmerie ñoom ñoo yore également réseau diplomatique bi euh, am nañu euh, mission diplomatique en Espagne ambassade moom mu ngi fa consulat mu ngi fa Madrid am na nañu consul honoraire Las Palmas am nañu consul honoraire Tenerife am nañu une association des sénégalaises yi nga xam ne ñu ngi kii am nañu ay daayira donc ñu ñëpp bu ñu leen boole woon mettre leen en action dans le cadre d'une cellule de crise au moins dañ doon am ay chiffres estimatifs yoo xam ne mënoon nañu basé wu si loolu pour ne pas rater l'esprit mathématique et l'esprit scientifique si si ay recherche chaque jour bu ñu xëyee daanaka gaal bu fa duggee rek dañu jàpp ne que Saint-Louis wala mbuur mën na amaan na sax tubaab yi dañu juum di ne ah ay sénégalais lañu fekk ni ay africain lañu donc loolu pour ñu mën ko xayma dëgg-dëgg waroon nañu mën a associer acteurs yi si nekk yépp surtout nag sunu mboq yi nga xam ne ñu ngi Las Palmas te ñu xam leen man xam naa leen Espagne laa nekk autre Africa association la boo xam ne Espagne la nekk donc mm, autorités yi nekk fii bu ñu mettroon ñooñu en contribution amaana ni du ñu am ay chiffres exacts waaye dañ doon am xayma boo xam ne dañu mën a xam au moins plus ou moins fan nañ si toll. yéen en tant que acteur am ñu leen toggal foofu ca euh, Espagne yéen si seen i xayma yan xayma ngeen am ci ñàkk seen bakkan ak tamit ñi dugg foofu la jamono ji ba démb si démb si guddi bi ma bi may bi may waaj kii je sais que Espagne jàpp na ni fu mu toll nii y' a presque plus de seize mille émigrés yu si dugg ci biir seize mille émigrés yooyu ñoom ñu ngi wax ni que trois mille yi sénégalais lañu. par rapport nag ak décès yi nekk biir géej. ban bànqaas ak ban kuréel ci Espagne moo wax loolu. Euh, police espagnole bi ministre de l'intérieur espagnol démb mu ngi woon Tenerife. Hmm. c'est vérifiable également si média espagnol yi parce que ñun tam foofu la ñu xayma. si foofu la ñu kii loolu mu ngi ci biir kii bi mu ngi ci biir euh, média yi et boo doon xoolee information yi ba démb daal en tout cas ñoom il estimait seize mille émigrés et d'ailleurs euh, fii émigrés yi di dal fu mu nekk ni sax ñoom dañ koy waaj a tëj pour mën a ubbi benn camp militaire boo xam ne dañ ko euh, désinfecté woon pour mën a yóbbu émigrés yi foofu. ba démb si guddi heure bi may tëdd maa ngi vérifier waat les dernières informations sur les médias espagnols foofu la ñu toll woon. Mhm. ci 3000 sénégalais yooyu ñi ci ñàkk seen bakkan ñoom ci seen xayma ñaata la toll. bon euh, estimation wu li ñu li ñu li ñu bind ñoom li ñu bind si foofu. ils ont parlé de 500 euh, migrés. donc ci biir 500 migrés yooyu pour ne pas aller vers l'amalgame une estimation inexacte ñoom jàpp nañu ni ko war na am ay sénégalais. loolu moom 500 yooyu moom euh, nañ ko xoolaat ñu kii même lenn rek laay kii mooy ni que bu ñuy polémiquer ci chiffres yi parce que quand on de clandestinité quand on parle de quelque chose qui irrégulière mooy ni que amuñu xayma bu kii mais li wéer ba wóor mooy ni que ay doomu sénégalais des nañu biir géej te ñooñu euh, war nañu fexe xam si ban fànn ak si ban condition la ñu décédé te loolu du ñun ñoo ko war a mën a def état bi moo ko war a mën a def état bi nag si lan la war a mën a sëkkandiku mooy si ñiy yegg foofu gaal bu yegg rek waroon na mën a am ku fa toogal Sénégal ñu xam yan condition la ñu génnee fan la ñu génnee ak ñaata lañu woon ak ñaata moo si des biir géej loolu moom état wu Sénégal ñun quelque part si orientation yooyu lañ leen di yóbbu mooy ni ko bu ñu nee rek mënuñu mais nañu jéem wala suñu mënulee tamit wala xamuñu ñu woo acteurs yi ñu toog gis nga fléau bi ñoom kese mënuñu ko régler ñoom koy mën a régler mooy partenaire au développement OIM y compris les acteurs ñun y compris Horizon sans frontières Autre Africa Recidev ak ñeneen la ministre Ngoné Ndoye elle est très active sur le terrain nekkoon na ci gouvernement bi amaana ni tey am na benn expérience tous les acteurs ñu woo leen autour de la question ñu toog euh, ñi jël gaal bi dellu c'est en c'est un ensemble la ñu mën a teg pour éradiquer ce ce ce mmh léegi euh, dañu bëgg xam yéen ONG bi nu ngeen gisee taxawaayu gouvernement Sénégal ci non seulement demu gone yi xayma gi ak li waral gone yi di dem. Euh, bon li ñu mën a jàpp mooy ni que ah ñun de gouvernement wu Sénégal kóolute rek la ñu war a mën a def si moom mais à stade nag wax dëgg yàlla ñun am nañu jaaxle parce que mënuñu am estimation bu toll nii ñu ne am na ñu si des biir géej chaque jour bu ñu xëyee. mu am ay pirogue yu ñu arizone fii gendarmerie bi arizone leen marine bi arizone leen su ñu xoolee côté Espagne ñu gis également ay milliers et des milliers sénégalais surtout nag actuellement ñu ngi nekk en dérive si île euh, îlu Las Palmas bi foo taxaw rek nit ku ñuul foo taxaw rek nit ku ñuul et les sénégalais avaient une très bonne réputation biir Las Palmas ñu ngi yàqal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon et que loolu am euh, ñu may wax waxu tuuti chef de l'État vraiment tweet bi jàpp nañ ko mais le chef de l'État n'a pas été élu sur la base de tweet je pense que c'est sur la base d'un contrat de confiance et d'une communication parfaite que les Sénégalais ont kii. ci buñ koy tekki maanaam Macky Sall euh, ba léegi fii ci Sénégal taxawul wax li fi xew mujj ñu dégg làmmiñam. waaw da ko bind ci internet. Euh. te da ngeen a jàpp ni ba mu soxlaa baatu Sénégal yi euh, sénégalais ñu woteel ko bindul daa wax ñu dégg. waaw ñu ma waxee ko ma wax ko si wolof bu set wecc mooy ni que euh, Macky Sall si xarala yu bees yi Twitter liñ ko dégg mu wax euh, communiqué conseil des ministres am na pàcc bu mu si laal mais ñun li ñu doon xaar dëgg-dëgg. moom mooy njiitu réew mi ajuma bi passé am na ñu nekk ci réseau internet yi lim bu takku sax bu def ñoom seen seen seen njaal yónnee seen njaal askan bi euh, gouvernement wu Sénégal yaakaar naa ni waroon nañu mën a euh, wax wax bu leer nañ bind bataaxal yónnee ko yónnee seen njaal jug sax jug sol seen dàll dem Mbour Tefes wala dem Saint-Louis ñëpp a xam ne gouvernement bi moo jug ñëw fekk si askan bi naqarlu ak ñoom jaale leen euh, jaxal leen si li nga xam ne xale yooyu des nañu biir géej côté boobu nag euh, yaakaar naa ni euh, mooy li tubaab bi di wax mutisme état bi mën na am tamit am na lu ko lu wundu mais tey fu ñu toll nii fi askan bi toll nii. leen moo tax nga jàpp ni nguur gi fi ñu toll nii gouvernement bi ak njiitam Macky Sall bëgguñoo wax ci yëf yi bëgguñ cee yi lan nga lan nga jàpp moo tax. Babacar démb suivre naa bu baax c'est c'est sa émission ak euh, ministre porte-parole du gouvernement. Euh, secrétaire général secrétaire général du gouvernement. moom à stade de responsabilité am à stade de information bu nekkee moom ñemewul wax. wala bugul wax li tax njuuti réew mi mënul wax man mi nga xam ni si suuf rek ab taalibe rek laa euh, maa ngi si berkel bi du ma mën a aventurer pour wax ni que lan moo ko waral waaye nag nañu jàpp ni que askan bi fu mu toll nii soxla nañu xam lan moo si nekk léeg-léeg askan bi si tiis ak jàkkaare bu ñuy toll dañuy bëgg suñuy njiit di waxtaan ak ñu te muy nekk tamit wax ju leer naññ boo xam ne ñun si loolu la ñu mën a wéeru gis na ñun tey acteurs yi mënuñu si def lu dara parce que orientation bu ñu def ko am na kenn ku may bi may ñëw léegi bi may wax moom may ne ah demal yaa ngi dem de mais attention procureur da lay déglu procureur mu ngi déglu rajo bi ndëgam ñun loolu lañ ñuy tegal si taabal bi donc mun ak action bu ñu munti jël ak information bu ñu mun munti am dañ ciy def ndànk parce que amuñu benn orientation boo xam ne si boobu la ñu war a mën a accompagner état bi gis nga lii bi mu amee ba léegi. état bi dañuy gis ne même bu ñu waxee ne par exemple ndaw ñi ñàkkum xëy moo tax ñu dem ñu ne non du loolu formé nañ leen ak liggéey a ngi fi boo nappkat yi géej gi dañ koo jaay euh, waa bitim réew moo tax nappkat yi liggéeytu ñu dem ñu ne non non est-ce que amul fuite de responsabilité finalement ñoom ci wàll wi. fuite de responsabilité weesuwul nga am presque plus de cinq cent morts une estimation boo xam ne c'est une estimation on parle presque plus de trois mille jeunes sénégalais en attente d'être refoulés euh, en Espagne te tu communique ne communiques pas sur ça maintenant problème mu xëy bi gis nga doomu aadama fu mu nekk sa wërsëg dina fa nekk il faut qu'on sensibilise il faut que ñuy wax ak sunu askan wax ak sunu xale yi xamal leen ni que dëkk bi fu waaye nekk war nga fa mën a xëy war nga fa mën a kii léegi nag problème bi fan la nekk dëgg la amaana ñi liggéey am na ci réew mi mais ban façon liggéey ak ki soxla liggéey nan lañ koy accompagner ba mu am liggéey foofu mën nañ fa teg sunu baaraam je prends l' exemple tout le temps dama koy wax lu mel ni 3FPT wax dëgg yàlla ñu ngi def liggéey bu am solo actuellement 3FPT li ñu nekk di def sur le plan de la formation di permettre étudiant bi nga xam ne bëgg na formation ñu may la formation faciliter la formation bourse boobu ñuy joxe buñ ko defoon également sur le plan de l' emploi tey El Hadj Ndiogu boo soxlee liggéey doo xëy rek nga dem si rajo concurrent bi mais da ngay dem si benn structure état nga teg foofu sa demande d'emploi structure état boobu xool ban organisme moo soxla journaliste ñu orienté la foofu kon tey dina am équilibre donc euh, wàllum liggéey bi surtout géej gi tamit ñu ngi wax waxu bateau de pêche yi du du ma sànni xeer suma suma mag suma xarit euh, le ministre Alioune ñoo bokk plateau si accord de pêche yi mais xam naa ni c'était quelqu'un ki est très fin qui est très patriotique très engagé accord de pêche yi bu ñu ko fi bu ko fi fekkoon amaana ni du demee ni cinquante mille tonnes dafa bëri donc euh, géej gi amatul xale yi di te ñii yóbbu gaal gi du ajoor ajoor yi du bawol bawol yi ay nitu géej ñu xam géej xam kap kap yu baax yi ñu demee géej amatuñu ñu def ñetti fan géej amuñu lu ñuy teere su su su yàggee ñu ne leen yoonu Espagne baa ngi nii te Espagne nag la ñu jàpp ni que Espagne buntu dugg rek la xale yi jëm yëpp tooguñu Espagne dañu bëgg a jugee Espagne dem si yeneen dëkku Europe yi donc. espoir bi foofu la am ñi ngi wax euh, bu baax ni ay gone yi nappkat dañoo bokk ci yëf mais lii ci mujjee xew dañoo seetlu diggante Kébémer. Mhm. jàpp ngaay mexe mhm. bari na ay gone yu bawoo foofu dem. Mhm. loolu lu ko waral ban explication ngeen ci mën a joxe. explication bu ñu ci mën a joxe mooy yaakaar l'aspect social da si am. tey. Euh, mais pourquoi foofu diggante boobu Kébémer diggante Kébémer ak Ngaye Mékhé. dafa wow dafa dëgër. y' a pas de travail. y' a pas de de de ressources yi nga xam ne. mooy te ne Ngaye nee ñu euh, bëggoon nañ ko def découpe euh, découpe der cuir defar dal ak yeneen yi. waxoon nañ ko essai def nañ ko. aujourd'hui quel est ana impacte bi nga xam ne moom la politique artisanat am si Ngaye ñu génneel ñu chiffres yi ñu génneel ñu évaluation gis na tey neex na ñuy taxaw di ne bëggoon nañu def wala def nañu xam lan moo am solo boo defee programme ñaari at ñetti at nga génnee évaluation yi teg ko sur la table askan bi yëpp xam ni fii dugal nga fi téeméeri milliards téeméeri milliards yi lii la wundu lii la génnee bu ko defee ñu mën a def évaluation bu wóor ñu xam ne xaalis bi nga dugal si askan bi nii nga ko defee rek askan bi nii la ko telloo loolu tamit am na solo léeg-léeg ñuy def évaluation di présenter résultat projet yooyu ñuy def taxaw di ne dugal nañ ko si rek amul solo taxaw nga ne lii lañ ko defee moo ëpp solo su ko boobaa ñun ñëpp ñu xam ne amaana ni bëgg-bëgg bi mu ngi fi sago bi mu ngi fi mais am na li des parce que nag lépp du mën a sottandoo benn yoon lépp du mën a sottandoo benn yoon kooku mën nañ leen ko jox mais li nga xam ne moo am solo ba dë ba wéer mooy ni que xale yi il faut que ñu ramener leen à raison il faut ñu joxaat leen espoir tey dafa am benn désespoir bu wóor boo xam ne xale yi mënatuñu gëm mënatoo wax ñu gëm seen bët xóot na trop parce que bëgg nañ ñu dimbali seen ay njaboot nga toog nga nekk ak sa wuy jur sa jur bu jigéen mu xëy nee la ah dama bëgg a teg cin yow laa yaakaar amul dara loo xam ne loolu nga koy jox nga nekk ak sa wu sa rakk ci biir kër mu feebar ñu woola hôpital nee la ah kaay participer si ordonnance bi wala sa rakk mu ngi nii nga fay sa téléphone nga xëy gis sa morom bu nekk bitim réew bu ñu ko woowee téléphone mu dugal léegi loo xam ne wala mu ñëw indi oto wala tabax kër loolu tamit euh, lekk-lekk ñàkk-ñàkk bi si yooyu lañ ko war a mën a leneen li si am solo mooy ni que euh, ñetti aspect yoo xam ne yii sunu njiit yi tam leen di ko ñaan à travers antenne bi ñu ngi ñuy déglu nañuy fexe ñu siy bàyyi xel gis nga ñii jëm aspect économique et monétaire bi da si am solo un franc euh, si un un éco un euro égal six cent cinquante cinq kii bale fii war a dem ko foofu trois cent euros fii bu fi ñëwee mënul am cent cinquante mille bu muy bale dem bi moo koy gënal nga war a dem football yi terrain yi baaxul ñu ne la Barcelone terrain yi yi si tali yi sax ay terrain gazonné la sa xel day nekk si loolu nga war a mun a jug fi sa xel nekk si infrastructure yi nga ne ah foofu moo gën loolu daal lu am solo la le développement de ce pays amul kenn ku ko mën a def si on conscientise pas nos jeunesses. Mhm. pour que ñu xam ne ñoom rek ñoo mën a développer suñu réew. wàllum conscientisation boobu nga wax sax gis nañ ne mbir mi jégg na dayo waral ba xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké yëkkati ci kàddu jaarale ko ci porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre wax ndaw ñi eh, nañ bàyyi mbëkk mi ndaxte xaru la est-ce yaakaar nga ni discours boobu kilifa gi kàddu mu yëkkati ndaw ñi daañu ko dégg et que bi yoon dina toog. ñu ngi koy sant gërëm di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu wér te ànd ak ñun. kooku bu waxul woon mu jaaxal ñu mu tiital ñu parce que fu mu nekk nii il faut mu am ko wax. ndëgëm ñu ngi doon xaar njiitu réew mi ñu ngi koy xaar ba léegi xam naa ni nag dafa nekk di di gëstuwaat rek ba ba jug si loolu mais xalifa bi euh, yaakaar nañu kàddoom du du tàbbi xalifa bi li mu wax loolu la ñu xaar si moom loolu mooy rôle am loolu mooy position parce que askan bi jaaxle na fu mu ne ni chaque jour bu ñu xëyee rek loolu mooy ki mais est-ce loolu nag euh, benn élan unitaire ñun ñëpp yéen ngeen def seen liggéey ñun ñu def suñu liggéey ñi yore réew mi ñu toog ñun ñëpp amaana ni di dinañ dinañu wax si loolu parce que xale yi li si ëpp solo mooy ni que tout le temps xale yi dañu dégg koppar bu bëri bu jugee Union européenne ñu ngi koy def si emploi yi ñu ngi koy dugal si kii mais ñoom duñ si gis seen bopp est ce loolu moo am est koppar boobu ñëw na si dëkk bi est koppar boobu dugal nañ ko si xale yi est ce koppar boobu yëpp dugal nañ ko si si si xëy mi loolu tamit lekk-lekk day xaw a ëlëmal xel. Mm-hmm. waaye itam euh, euh, ci dix secondes euh, yéen Otra Africa seen ONG bi tam est ce que am nay mébétu ñaax gone itam ñu bañ a jaay seen bakkan lu mu metti métti. mois de mars bi ñu koy wax adduna bi yëpp askan bi yëpp si mbas mi lañ doon xalaat. bi gaal gi génnee rek ñun dañu ne lii nañ ko arrêté loolu loolu mooy sunu kii mooy ni que sensibiliser attirer alerte ñun loolu mooy sunu mm-hmm. mission loolu mooy sunu gaal gu njëkk gi ngeen njëkk enregistré ne yegg na foofu mars la fi baw Sénégal mooy jamono ji mbas mi tàmbalee wulee ñaay si mm-hmm. diggu mbas mi jërëjëf euh, jërëjëf waxtaan bi am na solo ñuy gërëm euh, sunu gan gi tey euh, kon di Souleymane Aliou Diallo njiital ONG Otra Africa une autre Afrique en espagnol. effectivement jërëjëf euh, yéen donc euh, jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène El Hadj Assane yegsi na Assou Mbène Thioub euh, zéro faute ca geneen wàll ga. jërëjëf Babacar Fall wala